man sama jabar dafa war a sell am diine am lislaam jabar da nga koy tànn dafa am jabar jabar dafa am gel am man soxna laa bëgg waaw bëgguma jabar soxna laa bëgguma jabar jabar xam nga ko jabar xaj xam nga dama waaw waaw du ma seen xaw ma seen waaw c'est comment faire man na euh, bëgg bëgg naa bëgg naa sono su baax koo xam ne bam naa euh, dina doon euh, sëñ maam jaara bu sama koy tox a jóg nga bëgg ko taal tam la taal lu am ngeen bokk te yàlla tax mu dëggu nga dëggu ndax bam naa ñaan nga yàlla ñaan na yàlla am doom ñan ñan naa yàlla ñan na am doom yu baax ndax bam naa am na bu ne diw naa nga baax na naan bu ne diw baax na daan ana ana yaay ji kon boog bu may na may takk jabal man sama jabal dafa war am diine am lislaam man bu fekkee sax man xaw naa na sax ma sama jobal boo xam ne man xaw na doxoon sama jobal na baax. ja xaw la may jabal xaw la may jabal jaba mooy euh, jaba mooy ki nga xam ne bam naa kii sëy ma ko tax a jóg tax sëy muñ sëy koy tax a mu sëy muñ ta yàlla tax. bëgg la ta yàlla tax doole la te yàlla tax loolu mooy sëy waaye li ma léegi nañ seeti am na ñoo xam ne nañ seeti sa sëy suunu ne ñu ñëw at bi siiw na que baa ngi tukki sëfa bi portable bi iPhone bi ordinateur bi or bi tukki bi waaw am ñoo xam ne mm, duñ xool si loolu dañuy wax xool na kat Masonakat nga ibbi sa compte bi def li dafa sa avenir booy dem génn booy saf fen ñoo li nga sol baaxul comprendre nga bu ñuy dem ñu jël seen kurus julli ñaana la waa am na ñoo xam ne ñëw nag yuuxu texan jóg pétu be mooy loolu daal moo tax ma ne jabar dafa am gel am waaw bëgg ma wax bëgg ma wax ma wax dépassé si média ñëpp lay déglu maam fan ne laa moo tax bëgg ma di wax sama fan yoo xam ne mun ma daal bëgg ma ku ma mel ne